maman ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay bu baax amoon nañ la nañ la gis. maa ngi nii rek maa ngi ci jàmm alhamdulilah. borom mbetteel merci beaucoup. <laughs> tey nag ñu ñëw fekk la fii macha allah si événement Papis Niang c' était pas évident boo xoolee ñi gëj génn ñëpp tey ñëw nañu muy célébrité ak nu mu si mënti doon ñëw rek fa seene teewee li nga xamante mooy événement bi déjà yow euh, li nga gise initiative bi. waa initiative bu baax la ah, parce que toujours ñu ngi ñuy rappelé ñun ñooy ñaan. donc euh, daf dama koy faral di wax dafay euh, jot ci tout le temps bu ñu mënee rappeler xale yi surtout ñun ñooy ñan lan mooy suñu culture lan mooy suñu aada ak suñu cosaan ñuy fàttaliku suñu bopp da am solo. parce que tey boo xoolee ak fi réew mi toll ah daf moo dafay am xale yu bari yoo xam ne du du caaga ne dañoo dañuy def lu leen neex di dañu ñàkk xam seen bopp dañu ñàkk xam ñoom ñooy ñan. léegi événement yu mel nii nag daf ñuy permettre ñu xam ñun ñooy ñan xam nga di fàttaliku suñu bopp bu baax a baax. waaye c'est la faute à qui aux wala ñun ndaw ñu ñoo bëggul xam. no c'est la faute aux parents bien sûr parce que xale tamit bu sañoon xam boppam xam mooy kan dafa lay permettre sax nag ay détails yu bari man je me dis doo ci dugg ah yu yu bari parce que li may wax naan xale yër yër ñu ci bari ñàkk xam ñoom ñooy ñan la. donc boo xamee yow yaay kan da lay permettre ngay éviter yu bëree bari macha allah. xam foo sokkee dafa am solo dafa am solo ci nit. déggoo ma ne boo xamul yaay kan doo mën def dara lu jag doo mën a def dara lu baax parce que boo xamee yaay kan kenn ku ci ne fa nga bokk am na lu muy bañ am na lu muy bëgg am na loo xam ne boo ko defee dañu naan lii suñu aada ak suñu cosaan permettre la ko loolu dafay am solo. la nouvelle génération te tey ceebu jën la ñu wax la nouvelle génération ñu si bëri boo xoolee mënuñu togg donc nag mu mel ni mbir moomu tamit dafa doon loo xamante ne dafa doy waar ba ñu si bëri ne nañ looloo tax ñu la nouvelle génération bëri di am ay li nga xam ne mooy wujj. non non ñàkk togg moom taxul kenn am wujju mën togg aussi teewul am wujju waa ah, donc góor ñu moom mooy loolu bu ñu bëggee takk moom ah bu yeboo nga mën a togg waxuma la ceebu jën pend may waaye xoola mën a togg sax leneen terewula am wujju noog ñàkk mën a togg aussi taxul nga am wujju donc li am solo rek mooy li may wax toujours jigéen moom daf dañ ci taamu nag vraiment nga mën a togg loolu moom mooy euh, li nga xam ne mooy njëkk ci jigéen franchement mais est-ce que dina yomb yéen seen temps ak ñi nga xamante mooy ñun suñu temps parce que temps léegi ma amatul peut-être yéen amoon ngeen tuuti de temps pour ngeen mën a sax jàng ak ñun ñii nga xam ne léegi sax lépp dañu ko yombalal lépp dafa pare ñuluk sax léegi dañ koy jaay. moo tax nag ngeen war a mën a togg comme léegi lépp dañ koy jaay wax dëgg yàlla war ngeen a mën a togg et dafa dafa jaadu ci xale bu jigéen ay temps ak ñàkk temps amul toujours xale bu jigéen am nga temps boo duggee ci waañ bi jàppale sa yaay xale bu jigéen toujours war nga mën a am temps boo xëyee bala ngay jàngi am lu ndaw loo xam ne nii danga koy def ci kër ga doo ko jàngi c'est-à-dire que xale da koy occupé mais doo ko may Euh, liberté bu bëri pratiquement mooy indi yenn problème yu bëri ci kër yi waaye. ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa leen di jaajëfal chéri lu bëree bëri. une bonne soirée. merci beaucoup à vous aussi <laughs> merci.